Assalamualaikum mbokk yi tedd yi sen di isa bokar si Bokarr bi lay bi ci walli karange ci bi rew nama ko ñen ñi waxe ne ndax danañ ci mëna soti wante xalaat man kenn nak ma duma dakk ñep xalaat ñen ñi yaakar bee reey rek yalla def ko ci seeni xol ma ngi ñaan yalla nak yaakar bobu bu tas bu seen yaakar tas bu suma yaakar tas yalla na yaakarul kenn koku kenn man ta tas yaakaram parce que yaakarul kenn du yaakar tara waaw koo yaakaarati yàlla la yaakaar yàlla nag yaakaarut kenn boppam la yaakaar to kon doon natte yàlla yaakaar déedéet bu boobaa di nga gis ne kon soo gisee kaaraange théâtre booba ne ma ko doon faram-fàccee sànq ñi nga xam ne ñooñu ñoo ame wàlli kaaraange réew buñ dee yaakaar jërëjëf ndeysaan buñ dee yaakaar tàccu gis nga polis soldat intelligence officer yow bul yaakaar jërëjëf bul yaakaar tàccu ne soo ko seetloo ci misaali théâtre soo ñëwee ci théâtre kaay bi seetaankat yi lu ci gën a bari ñoo dee ëppa ñay xëcca rido yi ñay fompa ñay defaraat yaa ngi gis waaye ñi nga xam ne ñoom ñoo kaaraange réew mi ñoo ko amee ñooñu ñaara leen war a tax a jóg ñoo war a nekk ca waañ wa ñoo war a nekk mécanique lifin fiita yi ni ko gars yi di ooyee Gambia fiita mécanicien yuy defaraat engine bi ak itam ñu nekk ñiy togg ci kitchen ba ca waañ wa di jox nit ñi ñuy lekk dafa am lu angale di wax visible and invisible structure moo di jëmma boo xam ne danga koy xool gis ko wala jëmma jodut gis ñaar ñu ñoo matal yëfi nguur te ñaar ñu ñoo matal te dooleel kaaraange borom bi jox nañu misaal kenn su ñun du gis malayka xanaa nga doon yónnent rasul sallallahu alayhi wa sallam kon loolu invisible structure waaye ñooñu ñooñu contrôle ñooy binda bakkaar yi ñoy ñoy ñoy far euh, li fini ñoy bindal li nga xamne dina tax ñu faral la bakar man nga ñom ñu ngi yow fu ne su neexoon yàlla du defar malaika defar dara defar ñu ñun nit ni rek te fu ñu nekk lu ñu lu ko ne parce que loolu yépp responsibility daf ñu koy jàngal ku la gën a jege sa reeni xool kay kooku soxlawun malaika su ko neexee pour toppat say mbir waaye responsibility moo lay won ne bi liggéeyukaay la workshop kon yëfi réew loolu la soo xoolee théâtre soo defee lu reelu lool wala nga xereñ ci ngay dégg ñu yuuxu yee walla football wala leneen game yi si sport si soo defee lu xereñ ñu ne yee waaye lu ci gën a bari noppi bi moo dee ëppa kon moo lay won ngir maande doo ko gaaw a am ci doomi aadama sooy liggéeyal sa réew xam nga lan mooy médal médal médaille mooy xelaat yi ñu bari ci wàlli sa xereñ ak man-man ñu nangul la ko ne yow day xàmmee nañ la ci ñenn ñi kuñ xàmmee ci ci dara te wóor na la wóor yàlla wóor askan wi ne defu la ko waaye ñu jox la médaille bi yow soo weetee sa kër xam nga ne jox nañ ma lu ma yellootu waaye suñ la ko joxut tam bul mer bul gis sa boppa ne kaaraange réew liggéey boo xam ne la ah danañ la ci fay fii dinañ la fay alaxira ne ku suuxat jàmm yow suuxat nga islam parce que islam daf ne peace and submission to Allah lan mooy maintain peace security invisible and visible structure kon ñoom soo taxawee takka sa der takka sa tubéy takka yàpp nga ame ganay irek rek yow suuxat nga islam parce que da ngay suuxat jàmm na nit ñi dal xam nga jàmm du mun a am fu dal amut dede kon nak mbokay lolu moy security kon bu boba ña nek ci security sen liggéey moy togg ci wañ bi wala nekkal mécanique lu ci gëna bari da ngay gis nit togga ba pare ñu ne xorom bi ëppa na ñam bi tàng la lool sukar si dafa ëppa fàtte nay sax doole pas-pas déggu bi nga xam ne ka nga xam ne moom mooy togga mooy def lu ne loolu yëpp mu jànk wante ko saxaar si di bakkanam bi di génnee lu nga xam ne moo di ndox loolu yëpp fàtte nañ ko ndeg benn njuumte bu ndaw bum def ne xorom mën nay ëpp ci keneen xorom em ci keneen waaye di nga gis ne ñenn ñi seen bopp suñ ne xorom ëpp na rek bugatuñoo xam dëgg bi wala fen bi dangay ngay ah xorom bi ëpp na kay xëj na yow sax soo mosoon xorom bi du ëpp moo lay wone nag ku nekk ci affaire yi kaaraange waru la kaaraange ku jërëjëf déedéet bés boo liggéeyee ba dee keroog lañ lay gën a xas. waaye loolu soo ko jëlee won naa su ko gisee ko ne suma réew jaral na ma ko su yàggee saaga yooyu xaste yooyu dañooy mu dee nekk fatalaay sa sa caractère loolu moo laa transforme nga nekk ku dëgër ku njaxlaf dara dul fees sa but da ngay liggéeyal sa réew ngir yàlla rek tax mu jeex tàkk te itam juddu réew itam nañ bañ a nekk ñu bëri nekk seetaankat ku def dara nga yuuku ku defut dara nga ne manut dara déedéet yow su sa toon jotee demal ci kaw stage bi nga acte loolu moo indi term limits démocratie sas nañ la léegi demal nga acte su borom actee su munutee mu wàcc keneen eeg nga acte waaye mbooleem ku ñëw di nga fa fekk ingénieur yi technicien yi ñay liggéey ci xool ba loolu nag mooy sécurité ñooñu ku ñëw dañ la war a jàppale they have to loyal to the constitution, to the flag, and the commander-in-chief of the armed forces. Lolo, you have to. Otherwise, mënuloo koolee sa boppa professionnel mënuloo koolee sa boppa security personnel waaye ka ñooy loyal ci moom itam dafa war a loyal to the nation dafa war a royal loyal to national interest ne looloo tax ñu koy protect parce que nit balaa ngay dugg state house kenn musu a ñëw sa kër di la garde balaa ngay nekk ministre kenn musul lay garde xam nga lu tax ñu lay garde lan réew mi yëpp soxla lañ la dénk kon ñu ne nañ ko garde parce que su loroo réew mi rolu jërë ngeen jëf